dafa Mbacke Diop lañ di di kenn ci Serigne Mbacke Diop ndeysaan aja ah, Serigne Serigne may soxna may ayja Omar. le champion l'empereur Balla Gaye numéro 2. ñëw na ci li nga xam ne tey mooy doomu ndeyam frère am Serigne Mbacké Diop bëgg lu baax PDC Balla Gaye 2 l'empereur ñëw na ci li nga xam ne tey mooy Serigne Mbacké Diop PDC. IFS, Institut Fatoumata Sao, est un établissement de formation professionnelle supérieure privée. Forme des étudiants dans les filières suivantes. Transport logistique, marketing, commerce international, comptabilité gestion. L'admission se fait sur examen des dossiers. Les inscriptions ont déjà débuté. Début des cours le 1er septembre IFS, pour tout renseignement, veuillez nous écrire à institutfs49@gmail.com ou appelez-nous vite au avec IFS, notre approche de la formation professionnelle au Sénégal.